département bu Gossas région bu Fatick laay wax en général ku ne xam na ne ci mbay ngeen di yëngu mbay moomu li ci ëpp moo di gerte gerte googu tey jii ku ne xam na ne ay jafe-jafe dong ngeen ci nekk rawatina lii nga xam ne moom mooy prix bi ñu déterminé deux cent quatre-vingts lay doon alors que la woon maanaam booy xool ñoom li ñu leen yéene mooy dërëm dërëm boo ko joxoon xale bi tey jii bu demee ci boutique ba xamul lu mu ciy jël tey jii nappkat yi ku ci nekk tey la ñu gën a nekk ci ay jafe-jafe pourquoi parce que jël nañu suñu géej jaay ko jox ko ay tubaab ñoom nappkat yi mënatuñu am dara ba tax na ñuy jël ay gaal di ci yàpp suñuy doom di dem ak ñoom ca Espagne wala ci yeneen réew toskare di leen dal loolu ngeen tuddee mbëkk mi te tey jii yéen borom kër yi yéen njaboot yi yéenay jooytu yéenay wax ni dëkk bi métti bu ngeen bëggee mu dataan leen ki nga xam ne dara yitteelu ko lu mooy Sénégal boo xam ne dana naat ba seen njaboot mën cee am teranga doomu Sénégal yi des ci Sénégal tekkee ci réew mi te kooku mooy jëmm ji taxaw tàllal leen loxo di buggan